ba ku moomati kër kenn du ko natt waaye da ngay gis génn kër ñetti borom moom ko. Mhm. mu lënt boobaa ka koy atte sax day jafe ci moom te loolu chef de village yi sax mooy li leen gën a sonal ndax te lu nosu tegu ci woon leer rek noppal nit kon ñoom ñu ngi leen di bàyyi loo xel loolu am na ci quartier yoo xam ne coow suuf dafa bëri ba loolu ci ndigalu sëriñ bi joxe na ci ndigal.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 من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه كون لول ديالا غادي كارتي ني غي من سي نون جابوت غندينا يار غندينا سام تا ليپ لوي مان تي تيرا كو تي بي كارتي ني دوغا داف سو بيرف غي جابول لين تي نداخ لولو كات دك بوتون لي توبا لو مي نون بو في لاوي با ياغ دا نمو اب ياخ خو رك لي جوت نداخ نيت ني وار نانيو ام لنين في وري تروم عدم يلا هو بينون إن هذين هو شبيه إما شاكر أو إما كفر ما بني كتير رفاه من كجنة كنا جابوا جين نيجا خمّة نوي بروم كري أم نكير سمع سميت دلّا جد كارتة أكسف دي كارت أكسف دي بلاسي أم نكير سمع سميت نتيجة نقول قول تيجي نتيجة رفيتة بالول جن جيّح تلكني أك موالم نيجا خمّة نورنا أم نلو خيب تلكني الله خمّة نقر نسرين دو عادي تلكني ما نيجي أي كلبو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 seen pëstéef seen taxawaay bu rafet ak seenu góor ca gannaaw wax naa leen lu lu ne dégg ngeen ko waaye nag loolu amul solo la ngeen def ndigalu sëriñ bi la jumaa ji xam ngeen ne ñoom moomuñ ko ku fi nekkal Sëriñ Tuubaa moo ko yëlif jumaa ji Sëriñ Tuubaa moomu ku fi nekkal Sëriñ moo yëlif jumaa ji mu nekk ci loxoom moo leen fa tege baatam moo leen fa bàyyi kon sëriñ caa def fa la ñu xalaat ci loxo ne suñu digal di gërëm daayira Hizbut Tarqiyyah ci njiitalu Serigne Youssou Diop di ko sant ci taxawaayam bu rafet ndax ni ko ni ma la ko waxee fàllu ba nga jottali ko taxawaay organisation bi lépp ci loxoom laa ko teg te def na ko ne leen ko Serigne yi daa waxee rek isa isa ayqasatka xurubul ada fa nabbi ilaa amin summa nam Cheikh Mouhamadou Mountakha nee ñoom ay soldat lañ rek duñ tànn di gërëm waa daayira Rawdu Rayaahin ñoom itam dañu ay jàmbaar xam ngeen ni ñu demee ci yoon bi ni ñu demee ci sëriñ bi waaye jaay nañ lépp jënd ko taalibe di liggéeyee sëriñ Tuubaa ci wàllu xam-xam te xam ngeen ne sëriñ Tuubaa léppam xam-xam la ndax dëkk bi ba mu koy sanc daa wax ne li taallum wa taalim kanzil kitaab wala xadiis wala adab la jemo fiddati wala jemo saab kon ñoom liñ féete dara ëpp ko solo Cheikh Mouhamadou Mountakha mi fi nekkee sëriñ Tuubaa مشروع عم بيجنري مو ينالو يعني بيجنري مو ينيفيسيتي تنشان لو خلقته تديح نجي بنجني بتبعه يأجي لا برنامج بل لين يوارد في لب جيتنا كني يعني لين سامبلين كرمشي لين اللي جاي سري دواج وانو ديجيم دايرة سفين أمان تودنا للي نيوم يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نح أمنا شلو حمل يتع منو تشادوغو نح لو عيري ميتري وقو وعلي بدنا تيجي شاطوتي ñoom itam seen taxawaay ñu ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm sëñ Modou Lo Ngabou ci taxawaay bu baax baax di gërëm daayira tubaa ci kanam ñoom itam nooru daari ni yàlla def na nooru daari ni sax maa ko ci bindoon mm-hmm. ngir ndax boo Touba ci kanam rek lañ bind may leen jiite leen nooru daari yàgg na 2016 wala 17 la fii ñu newoon sax ci saaj bi ma toog mm-hmm. Mm-hmm. ñoom itam bañ juddoo léegi yàggut waaye seen taxawaay ak seen yitte ak seen posture ñi ngi góorlu ci dëkk bi la Cheikh Abdou Lahad Mbacké daa wax ne lu ne fàng diisu ko woon ko amu bët te ko amuti bët gërte woon daan la du gis di gërëm waa Xuddaamul Xadiim ñoom it ci seen yitte ak seen posture ak seen taxawaay ak seenu jaayante ci Sëriñ Tuubaa ngir sàmm noonu noonu ji ak mboolem daayira yëpp nag xam naa ñàkkuñu ma fàtte waaye xamul sëñ bi doy nag mm-hmm. tuddi gën mu sonal li am solo mooy li ñuy jëf ngir sëñ Tuubaa di yéemaat sëñ Tuubaa rek ndax sous-préfet ñi di toog te bu ñu woon gouverneur bi mu toog ndax ndaje ma ñu fi njëkk a def ginnaaw ba sëriñ bi joxe ndaje mu njëkk ba ci jiiti réew mi teewe na ko. Mm-hmm. may sa topp ma njëkk defaat fii te jox ndigal Baay Faal yi boo gouverneur dañ ko mu ñëw. Mm-hmm. kon loolu rek la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daa wax rek daa wax ne woo goñ daa woo Sëñ Tuubaa ci njariñ gouverneur di euh, commandant di ko mu leen di wusi moo leen tàggatal buur yi ñu leen di wusi te sañuñ ko bañ wallaahi kon loolu mooy li jël sol ci biir wax ji euh, maa ngi euh, diggalaat commune bi Abdoul Ahad ndax xam ngeen naw bi jub jub si na mu waxaat ak chef de village délégué de quartier yi ñu gën a góor góorlu ci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 kon loolu nañ ko ànd ak ñi ci quartier yi ak talib yi fexe góor góorgóorlu ci ba nawet bi bañ a sonn nit ñi ndax màggal gi muy dugg ci biir nawet ñi nga xam ne ñoo fi nekk nag di police ak gendarmerie loolu sous-préfet laa koy wax Serigne Touba lépp da koo fàggu ndax dafa bindoo ne kataballaahu tabaaraka wa taala anna dawlata nasaara intaqalat huna min aydihim moomeelu nasaara dana bàyyi dana jóge fii dugg ci yeneen loxo بندار في نين تمنى فناؤهم عما قريب سيرا بإذن من كل عبيد سيرا نانا طبعا بدنا نجيح تيريهم بجيح تك نانا بندام بجيح لك دنا دنا بجيمي جمعنا سامي تالبي نيو نيو نيو دخل لين دا دخل كون ريبي نان خام نك كين دوكو ييرف تا ياكارو سين توبا بارك بروم توبا بالله لور رك سين توبا مولاي تي خار باخ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 kon kenn ku ci ne bu xamee la ko fa bàyyi xam la tax moroom ne fa ndax ki taxaw ci yoon bi di sàmm nit ñi nit ñi nit ñee ko fa bàyyi ndax bu nit ñi côté si joxuñ ko dootu fa maa nekk. dëgg la waaye kete di biir këram dina nekk ci jàmmam itam wala am xelam mën a dal ña taxaw ci mbedd ñoo tax kon ñoom ñaar kenn mënu cee dem bàyyi sama ñaar nag bu ñu àndee te kenn mënta dem bàyyi sa moroom dañuy rafetal àndinoo rafetal dëkkinoo kon Serigne Touba nañ xam ne.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 tañ xam ne nag euh, liggéeyal Serigne Touba ci dëkk bi ñëpp la war ak Cheikh Ibrahima Faty wax ne liggéeyal Serigne Touba war na ñëpp te du wàcc kenn kon liggéeyal Serigne Touba mu ngir dund la ndax fii gis nga fi ñoo xam ne wóor na ne toog bu baax sax mënuñ ko bu baax sax jataay metti na ñoom waaye dañoo jaayante te ku jaayante nag da ngay matal la nga la la nga jaayante mm-hmm. wala la ngay séentu ci njëg doo doo doo jot.